rabbi auzu bika min hamazati shayatin wa auzu bika rabbi an yaxduruun mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di boole nuyoo boobu suñ mbokki internet yëpp yi nga xam ne ñu ngi suivre seen chaîne Safina TV tey nag ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñu dellu siwaat ci seen émission religion et société mooy émission bi nga xam ne day yittewoo lépp loo xam ne day nekk ci dundinu nit di ko jéem a dëppale ak diine tey nag ñu indil leen ñaari thème yu bokkul euh, incha allah bu ñu ko waxtu bi mayee ndax ku ne xam na ne ñu ngi séentu weeru koor te weeru koor nag jullit am na nu mu ko war a waajalee nu mu war a préparer boppam ci jaamu yàlla gu mag googu ak weeru ngëneel woowu ba nga xam ne bu ci génnee lañ cay séentu ci njëriñ dana ko am kon kooku danañ ko laytaay ci waxtaan bi incha allah moom la ñuy mujjee li ñuy ubbee nag mooy euh, lenn ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa loo xam ne nit ki bu ko bàyyee xel dana ko permettre dundam mu dund ko ca nam waree te réussite ba mu ca séentu wala tekki gëm bëgg yàlla mën na ko koo yombalal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp la lépp la daan jàngale daawul bàyyi dara daan ni mu daan jàngalee nit ki nu mu def ba nga xam ne bés bu dajeek yàlla du am kerse du ruus ndax dana texe noonu la ko daan jàngalee nan la koy naka lay def ba dund àdduna bi nekk loo xam ne lu réussir la tem boobu lañ indi tey nag muy yi nga xam ne mooy tere nit avancé yi nga xam ne moo lay gàllankoor ba doo avancé kon képp ku bëgg a avancé mu bàyyi xel yi nga xam ne ay tek tek la ay galankor la ci yu ni mel ñukay wowe woowee diddul ajs diddul ajs moy safano ak lot ci olof manam bàyyi lépp lo xamne manam def la lépp lo xamne contraire u faiblesse la ak incapacité buñ ko mënee firé non yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dan na kon wax naan istain billahi wala tajas na ngay dimbale ko yàlla toujours waye bul mossa faible bul mossa lott lolu di bokon ci ay jangalem yo xamné dan nako waxé ci façon bi dan nako waxé tamit ci benen façon mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na wax nan al muminul qawiyu xayrun min al mumini daif ki nga xam ne dafa gëm yàlla ba pare daal di dëgër am doole xam li nga xam ne yàlla may na ko ko ci xel xam li nga xam ne yàlla may na ko ko ci ay xadaraat ay kàttan yoo xam ne amul limite ci xel ak ci xalaat ak ci yu ni mel nee na kooku moo gën a dëgër jullit bi nga xam ne dafa doyal ci waaw kon di baaxul ci jullit toujours rek dafa war di yëngu dafa war a comme niñ koy waxee gëm boppam nee na kon moo nekkoon orientation yi nga xam ne daan na ko feesal ci xolu ay saxaabaam ñom ñi nga xamne ne ñoo war a guider ñi nga xamne ñi top ci ñom ba bép jullit bo xamne ci bép jamono ngay dund rek da nga mel ni nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ta bo melee ni bi bëgg da nga mel ni yàlla bëgg ta su boba sa aduna dana neex sa alakhirah dana neex waaye nak dawul yeng fofu kesse mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ci ñaax ay sahabaam ñu baña faible ñu baña doyadi waaye teewul daf leen daan wax yi nga xam ne mooy waral nit daal di doyati daan na leen ko wax di leen ko limal benn par benn bi njëkk ci yooyu nag mooy attahayub li ñuy wax attahayub mooy ragal euh, ragal bokk na ci liy tardel doomu aadama lépp looy bëgg dugg ragal caa dugg balaa ngay teg benn paa danga nga xalaata xalaat bay bëgg de dee euh, niki noonu kon loolu bokk na ci li nga xam ne day tardel doomu aadama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni nag ku jàkkaarloo ki ragala def effort ki nga xam ne ragal naa seq benn jéego jëm ca kanam ngir avancé mu mel ni ku jàkkaarloo moom naan ko avancé ndax maa asaabaka lam maa axtaaka lam yakun li yusibaka wa maa asaabaka lam yakun li yuxti ak waalam anna al ummata walaw ijtamaca annaasu ala an yanfacuka lam yanfacuka illa bi cheyin kataba allahu lak walaw ijtamau ala an yadurruka lam yadurruka illa bi cheyin katabahu llahu aleyka na nga xam ne na xam ne lépp loo xam ne mooy na la te dalula ci ay musiba te naroon laa dal wala mu waroon laa dal dafa fekk ne yàlla dogalul mu mu dal la ah, jullit bi lépp loo xam ne dalu ko rek ci ay musiba te dal ñeneen dafa fekk ne waru ko woon dal ndax yàlla bindul woon ne loolu dana ko dal waaye mu ne ko xamal ne lépp loo xam ne dal na la ba nga koy méttilu di ko naqarlu ak lu mu mën di doon xamal ne daf laa waroon a dal waru la woon a mooy moo tax waaw comme xam nga ñaar yooyu nag li la war a dal ci safaan dana la dal li nga xam ne waru laa dal munoo fexe ba mu dal sa kaw kon nag na nga avancé bul ragal dara lépp loo war a def rek na nga na nga ko def mu ne ko xamal ne bu fekkoon. jullit bi lay waxal mu ne bu fekkoon ne nit ñëpp dañoo daje ngir bëgg laa jëriñ ci dara loola mënuñ la cee jëriñ lu dul ne dafa fekkoon ne yàlla bind na ko yàlla dogal na ko muy la war a am waaye na xam ne tamit ñëpp buñ dajaloo ngir xañ la dara mënuñ laa xañ loolu lu dul ne dafa fekkoon ne yàlla dafa dogal ne waroo ko waroo ko am kon loolu lu mat a bàyyi xel la jàngale bu mag la yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale foofu ci wàllu dundin donte nag xadis bi bari nañu koy firee neneen nga xam ne euh, ñoom lañ koy firee mooy yàccaaral wala bàyyeeku wala ne lépp lu am rek yàllaa ko dogal toog rek ne lépp lu am yàllaa ko dogal xam naa dana mel ni ne waaje nga xam ne daf doon toog saa bu jullee toog naan yàlla may ma junni saa bu jullee ne yàlla may ma junni te moom du liggéey du dem fenn léegi benn jour mu toog ci benn suufu garab daana ko yàlla ñaan laa la junni ba sonn nga bañ waaye nag yàlla daaneel garab gi sama kaw rek garab gi fàq wutal si ko mu jóg daw daane ko yàlla daal yow safaan <laughs> safaan nga gën a sawar ci ku la ko ñaan ah yéeme na ndax dafa sabab lu dem ba ci garab ga moo tax waaye bu sabab la woon noonu ci junni ba dana ko am kon nag sabab lu la xadis bi di jàngale mooy nga jéem a def lu la war nga xam ne lu la ci fekk yàlla moo ko dogal waaye nag waxuñ la nga toog rek daan lu am yàlla la déedéet yàlla yàlla bay sa tool olof dana koy wax kon lolou mata baye xel la buñ dugalé hadith bi buñ ko déggé fañ ko wara déggé muy ben kon ci yi nga xamné day waral nit ki échec ci dundu àddunaam ba du tek muy ragal kon koku nañ ci baye xel bokk na ci yi nga xamné moy waral tamit nit di baña avancer moy hésiter ko xamné toujours mu ngi hésiter xel mi togul wa toujours lu mu bëgg dugg dana hésiter bay bëgg a dee hésitation bu ëpp baaxul moom la benn waykat di wax ku ñuy wax Chan Fara jiitu na sax lislaam waaye xasidaam danañ koy jàngale ci daara yi ndax Seydina Omar daan na wax naan da ngeen di jàng xasida Chan Fara ndax am na ay jikko yu rafet. Euh, da danay wax ci xasida ba mu ne wala xariqin hayiqin ka anna fuaadahu yazallu bihil mukaau yaalu wa yasfalu mu ne man nekkuma koo xam ne dama ragal ba mel ni piccum muka mukaa ci olof mooy piccum bàqaar ñu ne picc moom dafa ragal ba nga xam ne buy naaw ci kaw day foog ne am na lu ko war a lor ci kaw ba du boo du ñemee taxaw rek benn place du am équilibre buy naaw day naaw tuuti ci kaw wàcc ci suuf naaw ci kaw wàcc ci suuf ndax yaakaar na ne bu nekkee ci kaw day hésité am lu ko fa mën a fekk gaañ ko bu nekkee ci suuf it am na lu ko fa mën a fekk gaañ ko moo tax moom du taxaw benn place nee nag nee na nag man sama xol melul ni xolu bàqaar nga xam ne du toog benn place mooy ki nga xam ne xel mi du toog fu mu toll mi ngi hésité lu muy dugg dana ci hésité loolu tamit day waral day waral ñàkk jëm kanam moom la nabi sallallahu alayhi wasallam naan isa azamta fa tawakkal bu fekkee dogu nga rek na nga wakilu ci yàlla fa isa azamta fa tawakkal ala allah ci alquran boo dogoo ci benn affaire mu wóor la ne lii xam nga li ci alquran wax ak li ci sunna wax nekkul lu xaraam ci sa diine rek avancer nga dugg Moy bo dogo rek na nga wakilu ci yalla bok na ci yi nga xamé tamit day waral nit ki faible am faiblesse ci aduna Moy daw daw ay euh, tabiati taqaddum Manam, les conséquences du progrès nga di daw manam buma avancer ci mbir mi lan moma ci meuna fek yane conséquences nga diko daw ba sax doo muju def mbir ma koku tamit day waral nit ki dooye di day waral nit ki tamit euh, euh, am incapable nga xamne do avancer ci aduna fam mu bëgg egg du fa egg kon loolu lu mata baye xel la motax yunus sallallahu alayhi wasallam salaam doon wax naan yuzadu unaasun min ummati yawm alqiyamati an alhawd fa anhadu li ashfaa lahum fa yaqulu allah li laa tafaal innaka laa tadri maa ahdasu baadak innahum kaanu yamshuuna alqahqara ala aqaabihim mu ne keroog yowmal qiyaama dana am mbooloo mu bëgg mu ñëw ngir bëgg naan ca mbalka ma nga xamni mom lu ko yalla jox tam nenañ moy kawsar nga xamni ne xeetam ñoo ciy naan képp ku ci naan doto mar te lolu lu am la ndax amna ay nit yalla yu yalla may ci aduna ñu gënt naan ci mais ba niñu gën aduna maratuñu waaw rawatina nag koo dem na ba fofu mu naan ci koku dotul mar ba mukk képp ko xamne nak nag won nga diine def ko muy caaxaan wala nga weddi won wax yoonu sallallahu alayhi wasallam di jëfëndiko bida nee koku do doo ca naan nee na keroog yomul xiyaam am na ñoo xam ne dañuy ñew bëgg naan ñu dakk leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma ngir defal leen intervention seen digënte ak seen borom yalla ne ma deet bu ko def ndax xamoo luñ soson sa ginnaw waaw xamoo luñ soson sa ginnaw mo melni ku jaaxle mu ne ma ñom dal nekkee wuñ fa loon di delu ginnaw luñ bëgg songu rek arrière luñ bëgg songu arrière lolo tax kérok yowul duñ nan ca déggu kawsar kon arrière baaxul nit ki nay avancé toujours bañ a ragal xam ne doyloo yàlla gëm ko ndax olof dañuy wax naan ragal yab yàlla la xekk sax bul bu fekkee mesuré nga maanaam li nga bëgg a def xam nga la ci yàlla wax ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax jërul ngay sóoraale yenn conséquences yi la ci mën a fekk bokk na ci yi nga xam ne kon day waral faiblesse mooy koo xam ne foo ko fekk mi ngi réccu wala ak koo xam ne foo ko fekk mu ngi gaafal gaafal mooy pessimisme koo xam ne dafa pessimiste euh, kooku ak koo xam ne day saxoo di réccu di regretter rek moom ci la ci la toll kooku du avancer mukk waaw koo xam ne ay bu ma defoon nangam si pourtant amoon naa chance am ko de nangam nangam kooku foo ko fekk ci ginnaaw lay nekk ndax jëruloon risque pour def loolu kon ci réccu rek lay dëkk kon ñu gis ne kon euh, réccu dafa nekk loo xam ne bokk na ci li gën a am doole ci li delloo gannaaw nit niki noonu tamit bokk na ci li gën a am doole ci li nga xam ne day tax liy nelaw ci biiram ci njàmbaar ci e, loo xam ne ci bu defee effort tuuti mën na koo génne te su boobaa dana ko jëriñ lu bari ci àddunaam loola du ko mën a yee ndax lan ay rëcc yu bari ndax lan niki noonu tamit ay gaafal mooy koo xam ne dafa pessimiste koo xam ne moom pessimiste mooy koo xam ne moom pour moom dara baaxul dara du baax moom pour moom lu mu dugg du baax euh, maanaam àdduna bi yëpp contre moom la waaw kooku nag baaxul kon moom tax yonent bi salaa naan laa taqul law fa inna law taftahu amala shaytaan waaw nee na bul wax ne ay bu defoon nàngam ay bu nàngam amoon mooy baatu law ay su su duwutoon ak nangam nee na loolu day ubbi buntu seytaane day ubbi buntu seytaane te seytaane nag boo koy misaal boo koy firi mooy lépp loo xam ne ak suufe la lépp loo xam ne ak dellu ginnaaw la rek mën nga koo askane seytaane kon law mooy réccu ak gaafal day ubbi buntu seytaane kon jullit bi naka moytu bu bëggee avancé kon loolu lu mat a bàyyi xel la ni ki noonu tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax daan na sonn lool ci di tere ñaar yooyu bu dee ci gaafal daan na wax naan at tiiratu shirkun at tiiratu shirkun at tiiratu shirkun waaw gaafal di gaafal dara kooku bokk na ci bokkaale te bokkaale mooy bàkkaar bi nga xam ne yàlla du ko jéggale waaw ah, inna la laa yaxfiru inna allaha laa an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika li man yàlla du jéggal ku ko bokkaale mooy ku koy jaamu di ko boole ak leneen wala nga bàyyi ko fi di jaamu leneen lu dul moom kooku du ko jéggale kon kooku nañ ci bàyyi xel que képp koo xam ne yaa ngi gaafal ku ku rek xamal ne yaa ngi bokkaale yàlla yàlla ci yàlla musal kon nee na kon bokk na ci lim wax ne ci pessimisme baaxul wala adwa wala tayrata wa yujibu ni alfaalu saalahu asxaabuhu wamal faal fa ajaabahum kalimatun tayiba waaw mu ne wàllaate amul ku nekk sa yitte fa mu toll rek maanaam fooyam rek Ya, fa sabop. sa bop waye sa yitte fu mu egg rek war nga fa meuna egg ay bo toge di comparer sa bop ak nit ñi te moy adwa boobu mu wax su boba do dem fen ku nek ak na la yalla bindé ku nek amul sa morom amul bu fekke nak da nga nek yow di comparer sa bop nit ñi wóoluwoo sa bopp amoo confiance ci sa bop do dem fen niki non tamit wax moy pessimisme mune lolu amul nit ki moo koy def ci bopam rek lepp lo ayal magal ko sa xel rek day melni deug la parce que seytaane mo la ci jàppale waaw waaye lépp lo jàpp ne dang ko am rek te gor goru def effort bo amul lépp da nga am la ci upp kon wala adwa wala tayrat yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tek ci ne man lima yem dal li nga xamne mom lay admirer toujours moy al fa'l wala fnan ko gat nga moy optimisme optimisme dal yem na ma ki nga xamne ne na ne lu mu bëgg rek dana ko am ba ci ñaan sax yonent bi da na wax nan Eh, eh, tafaalu bil khair tajidu na ngeen gat nga lu bax na ngeen nek ñu pessimiste ndax bo pessim na ngeen nek ñu optimiste bo optimiste rek lepp lo bëgg dang ko am ci lu bax loolu la wax ci hadith ba kon motax fi mu ne yem na ma dal ki nga xamne dafa optimiste yeen eh, ay sahabam laaj ko lan moy fa'l lan moy optimisme mu ne leen wax wax ju bax wax wax ju baax te loolu firi na ko ci beneen xadis boo xam ne abu bakarin siddiq moo ko wax mu ne euh, albalaa muwakkalun bil mantiq bala li ngay bañ mu dal mi ngi ñu wekk ci ci sa tudd ci nga wax ko nit ki lépp lu muy wax ci safaan rek ko loolu mën na risque dal ci kawam waaye lépp lu muy wax ci ba ci lu baax it mën na dal ci kawam moom la yonent salaa sallallahu alayhi wasallam wax fii ne optimisme daal mooy ngay wax lu baax te boko waxe dang ko mébét boko mebete dang ko jema def kon lolou lu mata baye xel la kon lolou lañ indi won ci yi nga xamne julil bi bu ko baye xel jeune bi bu ko baye xel mën na avancer te ci dara génn ci jangal yoni bi sallallahu alayhi wasallam mooy yi nga xamne day waral nit ki incapable faible euh du réaliser dara ci dundam kon lolou lu mata baye xel la ñu ñëw nag ci ñaarelu xaj bi buñu ko waxtu bi maye incha allah muy waajal koor gi koor dafa nek weer bu mag weer bu yalla fonk nga xam ne euh, weeru yar bakkan la weeru yar bakkan la weer bo xam day wan nit ki moy kan day wax nit ki moy kan ta bo sa bop rek su boba yow da nga xam fa nga bëgg jëm ta da nga fa egg insha allah ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam man arafa nafsahu arafa rabbahu kep gu xam rek xam boromam te boo xamee sa borom na ko gëm na nga ko ragal te boo gëmee sa boroom ragal ko di ko jëfee ci sa dund àdduna ak sa mboole mbir yi foo bëgg egg danga fa egg kooku sikki sàkk amu ci te koor nag bokk na ci loo xam ne daf ñuy jàppale ci loolu di ñu fàttali suñ borom di ñu fàttali suñ bopp aussi moo tax jullit bi war na ko waajal ci préparé waat xolam seetalaat xolam beesalaat yéeneem ndax dañuy danañuy wax ne fa inna tamaama kulli amalin bi xusni niyati fii waaw jëf joo gis mu mat mel nañ ko bëggee rek su boobaa dafa fekkoon ne yéene bu rafet moo ca jiitu kon bu koor di ñëw ku nekk war naa nàmma say jàjji waajalaa sa bopp kon booy waaja lekk faaleen yi na ngay raxasoo ak na ngay waajalee sa bopp nee na koor tamit buy ñëw nga waajalee sa bopp noonu hakaza kon loolu lu mat a bàyyi xel la waajal sa bopp nag ci jikko yu rafet bañ koo def rek ci commencement koor gi comme ni ko ñenn ñi di defee commencement koor gi nga góorgóorlu ci fukki fan yu njëkk yi waaye la ci des sa yoon nekku ci kooku day mel ni defoo dara ndax al innamal umur bi xawaatimiha mbir mu nekk ma ngi ca fin ba ca fin ba la secret bi nekk hakaza kon kooku lu mat a lu mat a bàyyi xel la euh, ñu bàyyi wàcc xel bu baax ci waajal ci suñu bopp Euh, ci weer woowu nga xam ne weeru màgg la li tax ñu ne nag euh, weeru yar bakkan la euh, boroom xam-xam yi danañuy nettali naan keroog ba yàlla bindee bakkan cër yépp sax ba mu leen bindee ku nekk daf la waxloo waxloo na bët waxloo na nopp waxloo na loxo waxloo na tànk waaye ku nekk bu la man maay kan yow yaay kan danga naan ko man la sa jaam bu doyadi bi waaye yow yaay sama buur bu màgg bu tedd bi waaye bakkan moom bi mu ko bindee daf koo laaj yow la kan mu ne ko man la man mu ne ko man la kan mu ne ko yow la yow waaw man maay man yow yaay yow waaw yow daal sama gaayan nga rek xam na yàlla daan ne yóbbu leen ko ci euh, ci géeju ñàkk géeju rafle nee na ñu yóbbu ko fa ay at indiwaat ko yàlla laajaat ko même question mu tontuwaat même réponse yàlla nattuwaat ko ci yeneen xeetu mbugal yu bari waaye teewul bakkan changé wul waaye bañ ko yóbboo ci géeju xiif ak mar yóbbu ko fa ay at nee na gars yi avant ñu koy sori woo na leen ne leen yóbbuwaat leen ma ci sama borom comme dafa yor ay question man it am naa ay réponse bañ ko indee yàlla ne yow la kan mu ne ko man la sa jàmbu bu doyadi bi yow yaa sama buur bu màgg bi waaw kon bakkan xiif rek moo ko mën a yar xiif ak mar waaw xiif ak mar moo tax euh, comédien bi naan xiif xiif daal du mbokk ndax kenn du ko tuddee doom hakaza am na ci solo lool ndax day yar bakkan day tax nit ki euh, xam mooy kan xam xéewalu tamit xéewalu lekk ak naan su boobaa bu ko amee dana ci gën a sant suñ borom waaye bu fekkee toujours yaa ngi ci mu yomb la rek su boobaa mën nga ci bañ a sant suñ borom kon bokk na ci koor li muy jàngale gannaaw yar bakkan mooy sant yàlla dellu ci moom xam ne lépp moom la Euh, moom suñ borom bi tabaraka wa taala kon lu mat a bàyyi xel la ñu bañ koo def nag loo xam ne am foo la wala affaire comédie ndax dangay gis genre vidéo yu nekk dañ ko ciy def koor gaa ngi ñëw nit ñiy dawak loolu foye diine la baaxul nañ ci bàyyi xel ndax dañ ko war a préparer ci respect teeru ko ci respect boo amee gan goo xam ne da nga koo fonk boo koy teeru dana am noo mel gan gi war a gën a fonk nag <clears throat> ci àdduna bokk na ci gan yi gën a war a fonk muy koor kon buy ñëw war na am comportement bu ñu war a mel bu dul def ko ay ree def ko ay fo kooku nañ ci bàyyi xel rawatina aussi ci biir koor gi sketch yi ñuy dawal ren sax maa ngi dégg ñu ne ñi nga xam ne ñoo yor kuréelu ñoo yor wàllu média bi di ko saytu euh, wax nañ ne bugguñu ko foye diine ci sketch yooyu loolu lu am solo la loo xam ne lu ñu war a saluer la parce que lu toll ni koor ëpp nañu ci foye diine di ci foye julli walla bu ku woor ba ngoon lam amoon yépp eh, lam lam sonnoon ci bëccëg bi yépp mu toog seetaan ko tele ci loo xam ne ay caaxaan loo xam ne foye diine la kooku day mel ne woorul woon rawatina ña koy joué nag kenn waxu leen ñoom ak tele ba koy teg kon loolu nañ ci bàyyi xel man ngaa joué li ngay joué nga yeete xamal nit ñi fan fan la ñuy teg seen tànk ba sax reeloo leen ci loolu mais nag foye diine moom dafa ëpp kon kooku lu mat a bàyyi xel la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax niki noonu tamit euh, koor du weer woo xam ne dafa nekk pour yàq faaleen yi ak jaan yi bu koor gi ñëwee lu ne danañ ko jënd balaa heure dog a jot xëdd ba danañ ko jënd te ngaa jënd lu yem rek ndax li ngay jënd yow mënoo koo lekk mënoo koo jeexal doo am sax envie lekk yenn lekk yi boo boo dogee kon kooku ci bàyyi xel beneen bi mooy euh, farlu ci def yiw lépp loo daan def ci koor gi benn boo ko defee benn yoon ci koor maanaam lu dul koor nga ko daan def benn boo ko defee benn yoon ci koor fekkee fukk lañ la ci daan fay boo ko defee ci koor danañ la ci fay téeméer bu fekkee diis nga ci doon am danga ci am cent kon ku nekk war naa farlu lim doon def benn mu def ko diis lim doon def diis mu def ko euh, vingt niki noonu euh, ndax day day tax fayam gën a yokku mën na am bàkkaar yi nga defoon ci at mi yépp mën nga def benn yiw ci koor gi rek yàlla fàtte bàkkaar yooyu yëpp jéggal la bàkkaar yëpp ko kon lu mat a bàyyi xel la kon weeru promotion la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax lépp lu ci jaam bi def ci lu baax du ko ñàkk waaye lépp lu mu ci def ci safaan noonu lañ koy multiplier wi bu fekkoon bu defaan benn bàkkaar benn lañ koy bindal bu ko defee ci koor danañ ko bindal diis bu ci defee 10 danañ ko bindal 100 kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax euh, ci ci koor gi bokk na ci tamit tàmm nañ bu korite ñëwee euh, ñu ki nga xam ne woor na weeru koor sellal ko ba mu jeex waaye korite ñëw feetewu ko dara lu dem ci ay concert ay daje musique ay daje caaxaan ah kooku tamit su boobaa pertement bu rëyee rëy rëy la kooku nañ ci bàyyi xel bu baax bu jeexee kay ci ay jaamu yàlla nga ko war a màggal ay gàmmook wala ay jàng alxuraan wala yu mel noonu waaye waroo ko di ko feete ci ay caaxaan hakaza kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax nee nañ koor yàlla day tënk seetaane seetaane du du dox weeru koor moo tax jaamu yàlla gi di yomb def lu baax di la yomb koor lépp lu ci net nit def ci safaan rek xamal ne ci bakkanam la ko teg ak bànneexam waaye seetaane nekkatu fa ndax yéen sallallahu alayhi nee na bu weeru koor ñëwee dañu ubbi buntu buntu aljana tëj buntu safara daal di tënk seetaane waaw ba weeru koor wi sayaatin yépp la tënk seetaane ak njabootam yépp wa sufidati shayatin la wax ñoom ñëpp dañ leen di tënk duñ mën a gàllankoor kenn léegi nag moom bu korite jotee day profito day bëgg nag li nga xam ne rëccoon na ko ci koor gi lépp mu jéem koo dabu ci benn jour hakaza kon nañ fexe ba buñ tombee ci piège u seytaane boobu ñu téye suñu yiw téyewaat ko ba déwén nga xam ne bu ñu fi koor fekkaate ñu yokkaat ci leneen te ci la ñu amee texe àdduna ak texe àllaaxira koor nag euh, dañ ne bu fekkee vingt neuf chaabaan jot na ñu séentu weer bi gisuñu ko euh, dañuy matal trente dañuy toog trentième jour ci chaabaan ci ëllëg sañu soog a commencé woor moo xam gis nañ weer wala gisuñu ko waaye buñ ko gisee ci vingt neuf bi nag dañoo war a woor loolu yonent bi salaa moo ko jàngale buñ nemee ba tamit ba ci fin wu koor ga ñu gis ko ci vingt neuvième jour bi dañoo war a wori